dooti fiyee Oumy Diankano gi ma ngor kaaju fa Bambey ñoo ngi ci BCD donc aéroport léwu duwal sax ko dama jëpp ah léwu dama juum fan ABD ñoo ngi ci ABD tubaarikàlla maasàllaa ñu war a dem nag Amérique New York wuti doole liggéey liggéey ñu yóbbu de wër <laughs> entraînement mooy yóbbu yàlla nañu yàlla suturaal te mosuñu cet am làmmeñ joojo way ci kaw ci kanam guy gaa ngi nii sama rakk sama xaar kuy jéem a dugg sama diggante ak moom mbaa ngi ciy wax dara di nga ruus de di nga am gàcce de dugg sama diggante ak moom mbaa ngi ciy wax dara di nga ruus de am gàcce de sunu garant waaw sunu xarit sunu monument bilaay wallaay sunu référence bilaay wallaay sunu lépp lu baax rek bilaay moo ko taxaw sama wax rek ah. géeyaay jëm ku nar dal ci kaw géej waxatul loolu ñëpp yàlla na yàlla suturaal combat yi mu jëm yéen ñëpp am ndam ànd nekk benn liggéey yéen waay yor li mu yoraat billaahi wala billaahi ànd billaahi ndam ci kanam rek ci kaw xaajali ko baaxul fu neex waay baaxul baaxul rek ci kaw xajalu ko baaxul foo neex waay baaxul baaxul déedéet baaxul su boobaa noonu yi day bari wax suuf yi day bari <laughs> yàlla nañu yàlla suturaal te mosol ñu cam ak làmmiñ ci kaw ci kanam combat bi nga jëm ah, yàlla may la ndam sut kuy te yaa ngi liggéey nag amiin yaa rabbana yaa ngi yaa rabbana amiin Aliou Seye de Sa Thiès yi tamit suñu rakk yi waaw yëpp yàlla nañu yàlla suturaal ñu daal mm. ñi sa ginnaaw rek suñu grand ndeysaan suñu monument ndeysaan yëpp yàlla na yàlla sutura ñu daal mm. ñi sa ginnaaw rek suñu grand ndeysaan suñu monument ndeysaan foo ñu jaar ñu jaar waaw waaw yàlla na yàlla sutura amin sama rak sama xarit borom ceraba borom géejoo